par rapport ak dialogue bi nga xam ne woote na ci. Mhm. parce que aussi cadre la boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne xëy na fa la mën a exposer euh, les les fa la mën a wutee des solutions depuis lu defal bu ma juumul da ngeen du ngeen dem wala waxu leen loolu. waaw ñun xam nga dialogue dafa am lu koy tënk dafa am ci base yu muy teg. Mhm. booy woote dialogue dafay fekk yow li ngay woote gëm nga ko ba pare te sincère na ci yow. Mhm. te li premier point bi mooy lan Macky doo bokk ci candi yi. mais nit ki lay wooyee waxtaan. avant ngay dem nga poser condition boo xam ne da nga ko disqualifié moom mi woote waxtaan bi. mais xam nga kii woote tamit dana la samay terme de référence lii la xam nga su ma kaa ñu dialogué dama laa Mamadou Awa kaa ñu dialogué waaye ci lii la ñu dialogué yaa ngi dégg wax ci. yéen am ngeen intérêt ci dialogue bi république des valeurs. gis parce que point yi nga xam ne tudd na ko li naan li gars yi ñu appelé ay termes de référence. Mhm. bokk na ci parrainage te je pense que bu ma juumul yéen en ci lañ leen wàccee woon. waaw ñun parrainage comme ni ma waxee parrainage ni ñu ko defee nii dañ ko mës a xeex parce que parrainage dañoo bokkoon presque je me ne sax ñun ñoo nekkoon ñu mujj ci xeexoon parrainage bi en mhm. ko waxaat ci ci nii moo baaxul parce que modèle bi de sélectionner encore te du ngeen dem toog ak moom ne ko lii ak lii ak lii wala du ngeen def loolu dafa am lu muy àndal dialogue bi na sincère nañu wax terme de référence yi lan la bu baax ñu wax ko ndax dinañ ñëwal parce que actuellement ñaari camp ñoo am bu ma nee ñaari camp ci opposition bi laax wala ñi Macky Sall woo ñi nga xam ne il préfère aller discuter trouver une solution autour de la table ak ñi nga xam ne préfère investir la rue euh, contraindre ce régime mu nekk xam nga lépp rek stratégie la ku nekk xam nga ñun te plateforme lu ko tax a jug mooy non à une troisième candidature à un troisième mandat. Oui. donc tey dañuy tënku waxtaan xool ban plan d'action ban ak kii la ñuy la ñuy la ñuy def pour mën a dem tontu Macky Sall ci dialogue bi donc les partis politiques nag sont libres pour wax ku nekk li nga waxal li nga yaakaar ne yow boo demee ci loolu ngay mën a taxaw mais ñun dañoo nekk ci F24 te dañuy si ci dañuy si ànd ak ñoom pour xam ban posture lañuy ñuy taxaw mais encore une fois principe dialogue mooy lan dialogue dafa war a sincère. waroo ma woo def ni waa ji di wax ñamalaakaay wuy sa yaay te fekk yaa ngi yor sa jàppaaka si ginnaaw déedéet hmm. sincèreul waxal li nga woo digaale woon ak sénégalais yi mooy lan troisième candidature bi amul maintenant ñëw leen parce que effectivement parrainage bi dañ ci war a waxtaane processus électoral dañ ci war a waxtaane ki ko organisé dañ ko war a waxtaane mais moom dafa war a organiser ay élections libres et transparentes yoo xam ne bokk ci